xam naa damay génn TikTok ni ma toogee nii de problème vingt mille la am vingt mille kii di ma ñaan cent cinquante mille c'est mais TikTok oh, oh. man damay génn TikTok damay non man maay bàyyi man maay bàyyi oh waaye yow man. mais your blame I'm in my here I'm in my side I fair my video if you don't like forget me what right you uh, what's your name.